bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man wala ixwata al iman al ahibatu fillah assalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ci nuyoo bi ñu yàlla boole muy jàmmi yàlla ak yërmandeem yàlla na ko yàlla wàcce ci ñëpp incha allah dellu siwaat nañu rek ba tey ci seen jotaay bi nga xam ne mi ngi amee fii ci daarul bir TV di ñaanal mbokk yépp macha allah ci topp bi waaye di ubbee wax ji nag ci sant yàlla subhaanahu wa taala kañ ko bakk ko màggal ko ci ay turam yu sel ak i melokaanam yu mat ànd ak di sëlmal di julli ci suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ñu den di ko ñaanal xiiwal ak mucc sax di ko ñaanal waa këram ak i saxaabaam di ko ñaanal ku ko safoo nekk ca la mu nekkoon ba bés penc di taxaw incha allah mu mel ni dañoo jàlloon ci première jotaay tey ñi ngi ñëw ci ñaareel bi jotaay comme niñ leen ko diggee woon ba tey rek di bëgg a feeñal lenn ci jëmm jooju nga xam ne mooy Cheikh Omar Ahmad Sall yal na yàlla gaaw wallu ko foofu mu nekk te delloosi ko ci njabootam incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi bàyyi xel bu baax mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ñuy topp di ay soppe di ay wëllëre di wax amiin ci seen ñaan yi ñaan yaa ngi egsi bu baax a baax macha allah ay waa tey gis nañu ko amoon nañ fa visite yàlla def ñu toog ak moom macha allah mu nekk uh, koo xamante ne gis nañ ci moom ak njàmbaar waaye gis nañ ci moom ku mën a muñ waaye gis nañ ci moom ku mën a nangu dogal ñi am rafet njort ne lii daal du ko yokk lu muy ay maqaama incha allah du ko yokk lu muy ay xame waaye du ko yokk lu muy mu mën a xam bu baax fan lay teg tànkam waaye lii di résultat daawa ala kulli xaal comme ni ko cheikh Mouhamad Ahmad waxe woon ci jotaay bi ñu weesu ba tey rek ñun dañoo bokk ak Omar Ahmad Sall kon bu ñuy wax ci moom dañ naan day ci jëmale booram moo tax dañuy woo ki nga xamante ne moom lañu ñu woowoon ci jotaay bi passé mooy imam al oustaz alxaaji Sarr bàyyi ko ba Gàmbi incha allah continuer moom ba tey ci jotaay bi boole kook jarbaatam bi nga xamante ni ci këram la nekk ndeysaan yoral ko lu baree bari ci daara ji moom itam ñu di ko ñaanal yàlla yoonam yàlla na ko yàlla leeral eh, falang seytaane ci yoonam ba bu ci am benn cër ala kulli xaal mag ñi ñooy wax ni xale bu loxoom setee mu mën a bokk ki mag kon nag ñi ngi nuy ñëpp di ziar ñëpp incha allah di leen jox Cheikh Alxaaji saar mu nuyoo su paree ñu jox leen al imam Mouhammad Ahmad li mu nuyoo ñu continuer ba tey ci laaj yi ci kan mooy Cheikh Omar Ahmad Sall ya Cheikh tafadal maskur alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala afsahi al araba alihi wa sallam tasliman kathira gannaaw bu ñu santee suñu borom julli si sang bi di muhammad alayhi salaatu wassalaam fas yéene ñëw ak yéen si deuxième partie alayhi wa sallam pour xamal nit ñi te seen àq la tamit pour ñu xamal leen kan mooy al oustaz Omar Ahmed Sall hafidahullah lii mooy suñ deuxième parti bi moo ñu fi tax a toog tey ñu ngi sant ñëpp tatagal ñëpp incha allah gis nañ seeni ñaan ak seeni taaliqaat nga xam ne fii ba bitim réew jazallahu ljamia xayral jaza amin amin amin barakallah fiik ya cheikhana aywa comme ni ngeen ko déggee rek moo àndoon ak ñun ci jotaay bële macha allah ñu taataanoon ci moom lu baree bari loo xamante ne ba tey ñu ngi koy jëriñoo yàlla na yàlla xeer ñu ko te di ko masaw coono bu baax a baax ndax damay wax ne kenn wéetul moom moo wéet ndax lu bëree bari moo Oumar Ahmad Sall ñoo ko doon séddoo waaye nag moom itamit mu nekk ku nangu dogal ala kulli xaal ñu ngi koy ñaanal yàlla yokkute bu baax a baax incha allah ñu jàll ci Mouhamad Ahmad li di jarbaat moom itamit mu nuyoo ñu doog a dugg incha allah ci laaj yi alhamdulillah alhamdulillah bi nicmatihi tatimu salihat wa bi rahmatihi tatanazalu alxayrat walbarakat wa bi tawfiqihi tataxaqaqu almaqasidu walgaayat summa alsalaatu wassalaamu ala ashrafi alambiyai walmursalin nabiyina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina wa man walahum mbokki Sénégal yépp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ci àdduna bi ñépp ñu ngi leen di nuyu rawatina mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo safoo daarul birri tv ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di beral nuyoo suñu waajur oustaz Haroun Ahmad Sall ak suñu ki nga xam ni mooy suñu oustaz di suñu waajur ba tamit ki nga xam ni mooy oustaz El Hadji Sarr di sant mbokk jullit ñëpp nag ci siibur bi ñuy siibur di leen masawu bu baax a baax fa tabarakallahu di ñaanal oustaz fa mu nekk yàlla na ko fa yàlla jëlee ak jàmm ak salaam wa tabaarakallah jazakumullahu xayran imaam Ahmad li macha allah ñu ngi rafetlu bu baax xutba bi nga xam ne tey ñu ngi ko doon teewlu mu nekkoon ki ko taxawe yàlla na yàlla nangul jullit ñépp seen aljuma aywa tey comme niñ leen ko waxee woon rek comme mbir mi ni ngeen ko xamee dafa nekk ci loxol yoon moo tax ñun qadiya boobu comme ni ma ko waxee woon ñëpp ñun yitteeluñu allahuma lu muy ñu ngi des daal di ñaan yàlla ci mbaaxam yal na yàlla gaaw wàllu Umar Ahmad sàll ba delloo si ko ci njabootam mu continuer ay activité yàlla mën na ko yàlla na ko def dañuy wax ne atte ki koy def mooy allah subhanahu wa taala kon kiy àtte dafa war a yëg ci boppam ne moom itam dañ koy àtte moo tax lii lay taayam moom àttekat mooy toujours na ngëm yàlla jiitu ci moom yàlla na ko yàlla def ci àttekat yépp benn mag day faral di wax ne nit ki bu demee ba ñàkk yaakaar ci yàlla ci bàkkaar bu mu doon def walla njombe yum doon toggoo ci yàgg ci lool dem ba amatul yaakaar ci ne yàlla dana ko jéggal dafay gën di sori yàlla dafay gën di sori moo tax yenn yi ñu di koy faral di gis parce que nit ñi dem nañ ba def mboolem xeetu bàkkaar boo xam ne yàlla alagee na ci ab réew ñun fii toll nañu foofu waaye nag mbaaxu yàlla mi ngi ñuy gunge ndax yàlla du leen alak fekk yonent yàlla muhammad mi ngi ci seen biir yàlla du leen alak fekk yéen a ngi def ay bàkkaar di wax astaghfirullah loolu dafay dellu rekk ci mbaaxu yàlla ala kulli xaal waaye ñuy dénk suñu bopp ragal yàlla di ko dénk képp koo xamante ne rek jullit la damay gis léeg-léeg ñoo xam ne mbir mi dal ci Cheikh Oumar Ahmad Sall dañ ko koo yéene lool ñenn ñi sax ndeysaan bi ci di ci feeñal seen bopp di wane ne mbir mi kontaan nañ ci lool leen di ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla defal leen ay xolu jullit yàlla na yàlla defal leen ay xolu jullit jullit du ndokk moroomam jullit du ndokk moroomam dafa war a am solidarité ci digganteem ak moroomam lu tax mooy yenent bi mu leen di misaal dafa ne dañoo mel ni benn jëmm jëmm nag bu bopp mettee cër yëpp yëg bu loxo mettee cër yëpp yëg kon yàlla nañu yàlla defal loolu mbokk yi waaye nag yéene moom wala fi ñooy wax ne néeg la boroom moo cay fanaan yàlla mu ne wala yahiqul makru shay illa bi ahli kon oustaz loolu tamhid la woon lay tay la woon rek ci jotaay bi dañoo bëgg a xam ba tey rek kan mooy Omar Ahmad Sall axlaaquhu wa muamalatuhu ma am naas lan nga ci xam nga baaxee ko mbokk yi incha allah bismillah alhamdulilah oustaz Haroun si laaj bi ma laaj continuer di wax si jëmm jooju di sama sëriñ mi nga xam ne man naa wax ne xam naa ko lool lépp li ma ciy wax euh, xam naa ne sama diggante bi yàlla la hmm. euh, duma si wax loo xam ne du dëkk li ma la ci wax rek xamal ni dama ko dund ak moom te bokk na si axlaaqiyaatam yi muayashatul waaqii wa taatuful xayyi loolu xam naa ko si moom muayashatul waaqi xew-xew jamono dakaa xam da koy jaral lu nekk luy xew Sénégal dina ko jaral mu toog ba bor set di seen yépp nag xam moo tax saa yu waxee rek da xam ni ku xam nit ñi moo wax ku yeewu moo moo mooy wax loolu yàlla may na ko mu aaya sotul waaqe yàlla may na ko su waxee si yeneen buntu sax da foog ni loolu la gën a xam waaye nag am na taatuf tamit am na yërmande trop waaw su gisee loo xam ne naka su dut noonu la dangay ngay gis rongoñam di tuuru ustaas nit la boo xam ne amal na ñëpp cofeel xataa maa al muxaalifin ñi nga xam ne bëgguñ ko mhm. ustaas bëgg na leen ustaas day jëllale ustaas day baale kam mi marrate ñaata yoon nit taxaw na saaga ko ba saaga ay waajuram comprendre nga li may mhm. kooku mooy ñëw wëlbatiku waat woo ko sama kanam mhm. dund naa ko maag moom ne ko man nii maa la woowoon bés sàngam saaga la wax la wax yu ñaaw mu ne waaw xàmme naa sa baat lan la woon ne ko damaa bëgg nga jéggal ma mu ne ko jéggal naa la man kañ damay woote su sunna rek alkitaab wa sunna si loolu rek laay woote man nekkuma fi di saaga nekkuma fii di ŋàññi ku ma saaga bàyyi naa la ak yàlla waaye ku ñëw tamit nga ne da nga ma baal ma baal la àq rek man loolu du sam problème loolu da koy def oustaz dama ànd ak moom dama lay wax ne dafa amal Sénégal yëg-yëg nguur gi sax da koo amal yëg-yëg pour nit ñi xam loolu ma nekk ak moom si oto mu ne ma xam nga benn borom xam-xam day wax benn mu ne ma alaaji man ñaan boobu ma neex dama koy ñaanal suñ président mu ne mu ne boroom xam-xam da daan wax ne su fekkee ne xam naa ne benn ñaan bii la ma yàlla di nangul at bi benn ñaan jooju rek mu ne ma président bi koy kon da gis ne. am na yëg-yëg torop si waaqe ul ak mhm. waaqe u Sénégal ak waaqe u waaw ak waaqe u ummal mhm. waaw lu xew si àdduna bi. Mhm. si jullit yi xamal na ustaas da koy naqaru. kon lii mooy beneen jikko bi nga xam ne moom la ustaas Omar Ahmad Sall lambaayo. jazakallah xeer kon moom bu ñu déggee am na te faamu bu baax a baax a baax. li nga xamante ne nekkoon na ci yonent bi ba daawul faylantoo ci côté luñ ko jëf muy lu bon bu ci gën a bari yonent da daan bàyyi kon jël na ci loolu loolu jël na ko parce que benn bi maa ngi doon wax ak moom si yooyu mm-hmm. mu ma ne ko ah parfois damay bëgg di mer mu ne ma déedéet bul mer mm-hmm. liñ ma wax bu ci mer même tey sax mm-hmm. ba ma ko seetee loolu la ma wax dama ko xool si gi mu ne ma koo xool mu bul mer bul def dara lii mbir la moo xam ne yàllaa ko dogal te daa war a am mu ne ma ñu bëri ñoo si jaar wallaahi wallaahi wallaahi ñi ma gën ñoo si jaar kon jëlal muñ rek oustaz ah, noonu la mel ahsanta ya cheikh ahsanta ahsanta ahsanallah ilayka macha allah waadix leer na nañ li mu wax nii am naa ci benn témoin boo xam ne euh, danaa ko def rubama ki nga xamante ne mooy jëmm ji ko taxaw woon su ma déggee dana xam kan laay wax mm-hmm. lii maa ko fekk mm-hmm. bi ñu ko woowee ci yoon bii mu wuyu ñu téye ko mm-hmm. ñun ñoo ànd man ak moom ak Samba Niang mm-hmm. bi ñu ñëwee ba Colobane mm-hmm. ñu war a julli foofu timis Samba Niang ñëw taxaw ñu wàcc maak moom Samba Niang dem di yeeslu njàpp maak moom ñu jubal ci jàkka ji fekk Bilal bi mi ngi nodd bi ñu jullee timis ba génn Samba Niang di wax ak borom place bi mooy ñiy jaay téere bu ñu ma déggee dinañ ma xam bu baax ak li may wax. wallaay benn waay fekk ma ma taxaw ak moom ñuy xaar Samba ñëw ko moo yore oto bi. mu ne ma kaay jël ma seede. wal wal quraanil mu ne ma kaay jël ma seede. ci kanamu oustaz. mu ñëw ne ko oustaz diw laa tudd bal ma àq ndax mus naa laa wax lu bon. oustaz ne ko wallahi bal naa la àq. man fi ma taxaw mënatumaa téye sama bopp. maa maa téye mbokk mi ci loxo ne ko kii amul problème yooyu amul problème yooyu. alhamdulilah waa ji wax na ko sax santam. mu defal ne ko bajaan mu ne ko ca waa Saloum moom oustaz ne ko ca waa Saloum waa ree ne ko waa Saloum mais instant boobu man mënatuma mënatuma maîtriser sama bopp. ala kulli xaal loolu di wane rek la nga doon wax ne lii dëgg la lii moom yàlla defal na ma maa ko fekkee keroog. Ah, mooy wuy ji bii mu wuy ji woon ñu téye ko parce que wuyu ji bi kenn kenn kenn kenn kenn yëgu ko la ko wax. ak euh, ak Samba ak benn góor goo xamante ni musul def lu mu yëgul te ci yoon bi la ko ko waxee alaakul kon yaakaarul woon lii waaye nag nii la yàlla di doxalee ay mbiram bu dogal egsee rek egsi na alaakul ñu di ko nangu di ko ñaanal yàlla Cheikh Mouhamad ba tey ñu ngi ci rek axlaaquhu moom Oumar Ahmad muy ay jikkoom jëflanteem ak nit ñi lan nga ci xam ak nga mën ko baaxee mbokk yi ñu gën a xam kan mooy Cheikh Oumar Ahmad Sall. alhamdulilah euh, xam naa ni question boobu moom. dara desatu ci ndax ku bugg a wax ci oustaz Omar Ahmed Sall lépp loo wax rek dina am loo bàyyi ndax jikkoom yi fa tabaarakallah dafa jàng sunna yenent bi alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax mu di ko appliqué mu di ko jëfee ndax suñu yaay Aïcha laaj nañ ko wax ñu jikko yenent bi mu tënk ko ci benn baat kaana xuluquhul quraan jikko yi yàlla wax ci alquraan te ñu rafet ma tënkal la ko ñu ne ah mu ne moom moo nekkoon jikko sang-sang yi yenent bi alayhi salaatu wassalaam lépp loo xam ni jikko la te alquraan ŋàññ ko yenent bi melut noonu kon loolu moo tax Oustaz Omar Ahmed Sall ay jikkoom yii ngeen wax ci yeneen bi alayhi salaatu wasalaam la ko royee bokk na ci ay jëflanteem buy jëflanteeg yow bu fekkee ne ci wàllu sa situation moo compliqué wallahi comme ni ko Oustaz waxee lutfuhu wa atfuhu ñeewent bi muy am ak riqa bi muy am ci yow mooy raw sax yow bi nga am am naa ci mbokk moo xam ni ndeysaan wallahi Oustaz dafa def gest boo xam ni bu ma yéem la ba tey musuma koo nettali mbokk mi dañoo daje mu dox ba dab ma ne ma Oustaz Mohamed lii ma gëstu taxaw mu ne ma man de dama laa yittewoo ma ko jàmm mu ne ma waaw mu ne ma yàgg nañoo daje ci jumaa Oustaz Oumar Ahmed Sall wante am naa lu ma bëgg daal ci Oustaz ma ne ko jàmm la mu ma waaw mu ne ma xoolal taabal bii fii laay sama doole di fi ñàkk mu nekk ay pom banaana ak ay raisin ak ay mangoog yooyu waaye am na cantine bu nekk ci wetam buy wàcc day dajale yooyu ci kees dugal ko ci biir tëj yàlla dogal nag mu ne ma bërki démb damaa dugal kees yi tëj ñi nga xam ne ñooy nit ñi nga xam ne ñooy jël alali jàmbur mhm. ci guddi gi lañ fi ñëw dajj ko jël lépp te lii ci laa waaw mu ne te lii dërëm yi ma ciy am ci laa daan dajale di ci fay location ci laa daan joxe dépasse jaaxle naa nan laay def ba gisee oustaz ma ni ko bu subaa xëyal nga dem centre ba mhm. soo demee miin na sa kanam nga nuyu ko nga toog ak moom waxtaan ak moom mu ne ma est-ce que dina ma dimbali man affaire bii metti na de mu wax ma som boo xam ne wallaay som bu diis la man ko demar rek ma insisté ne ko demar rek nga wax ko li ma wax nii nga wax ko loolu mu dem bi mu ñëwee mu nuyu oustaz ci li ma nettali nettaliwaat na ma ko lépp mu ne damaa dugg si nuyu ko parce que bi ma ñëwee jour boobu daf ma séen rek daw lëng ma moom moom moom waa jooju bi ma lëngee ne ma tey dem naa ci oustaz ma ne ko loo fu jëlee mu ne ma laa ilaha illallah li nga ma waxoon ci moom lépp a am nan la def mu ne daf maa woo ne ma kaay ma dugg ci bureau mag moom kese mu tëj bureau bi bëggul sax ñu nekk ci biti dégg li may wax ma nettali lii bi ma ko nettali ba pare mu ne man sama rango ñu ngi tuur maa ngi jooy mu ne mu ma dalal looy jooy fompal sa rangoñ ñaata nga wax mu ne ko nangam mu ne oustaz ñaaram la ma jox te wallahi laa la wax oustaz nettaliwu ma lii oustaz nettaliwu ma xam nga léeg-léeg waykatu naar yi di wax naan alaka sirrun indallah ndax am nga secret boo xam ni yow yaa ko def sa digganteeg sa borom kenn xamu ko baynaka wa baynallah yaa yàlla kese ko xam xoolal loolu oustaz mu ngi may nëbbu loolu te oustaz xamul ni sax waa ji man maa ko maa ko booleeg xam nga loolu bokk na ci jikko yi in tubdu sadaqaat fa ni'ma hiya yàlla nee na bu fekkee li ngeen di joxe taman maa tax bu ngeen ko feeñalee yàlla nee na dara newu ci dinaa ko nangu de waaye wa in tuxfuuha wa tu'tuuha al wa xayrul bu fekkoon ni dangeen koo nëbb ngeen jox ko waay ñàkk ah loolu moo ma gënal de man yàlla kon lii day wane ne Oustaz Omar Ahmed Sall mu ngi roy alquran alhamdulilahi rabbil alamin jazakallah xayr ahsant ahsant macha allah am na solo lool lii nag bu ñu koy wax pour nit ñi mën cee roye waaw parce que te yëg ne lii mooy yoon bi yàlla nañu ci yàlla tënk te yombalal ñu ko ala xaal ba tey rek ci laaj boobu léeg damay dégg ñi nga xamante ne dañuy wax ne oustaz li muy joxe moom moom moomu ko maanaa ay naara nekk ci ginnaawam <laughs> te baax ci alalu jàmbur dafa yomb léegi nag kii moom day faral di ànd ak moom lu bari te am naa yaakaar ne lu baree bari daal ump ko ci oustaz ma bëgg daal nga leeralal ma ko waaye nga leeralal ko ñi la xamante ni waaw sëñ Harouna boo ma laajee loolu dina ma neex oustaz at bu nekk dina dem Màkka waaye relation bi mu am naar yi mooy ñu nekk tawaaf muy jàngal nit ñi naar yi di ñëw mu leen di jàngalaaleel li may wax ni comme ni ma commencé sama wax rek si laay daanale ñu nekk di tawaaf moom naar yi di ko topp naan ko li ngay wax ni mooy sunna kon yow waxal ñu koy bamtu si gannaaw relation bu mu am ak naar yi mooy. mu leen di jàngal nu ñuy tawaafee. ak sooy tawaaf looy wax. am maa naan xaalis lañ koy jox loolu saa su nekk daf may wax. lépp li may def rek métier la boo xam ne sama wayjur bu góor moo ma jàngal si laa teddee su ma tabaxee si sama fajtal bi laa teddee su ma fayee waa daara si sama fajtal laa teddee day ñàkk tooy xep liggéey fay ñi ko jege oustaz loolu oustaz même ren man am naa benn xarit naar boo xam ne tabaxal nañu école bu mag suñ dëkk Sénégal jii mhm. Bettenty yéen ñëpp xam ngeen ne falaa laa jóge mhm. damaa toog Gàmbi rek waaye waa Bettenty laa mhm. naar bi lu mu dugal si école boobu noonu ki ma xam xam Souleymane xam na loolu dëkk la ba ma demee maag moom ñu ànd ma ne ko dama bëgg nag nga gisanteeg naar bi dama ko si ñaan bañ nekkee Madina mu ne maa laaj jaru ko mu ne ko nañ dem rek mu gis la anta asadu sunna anta tazubu an sunnati rasulillah yow day yow yaa nekk di taxawal sunna kam mm-hmm. mi maratin nit ñi saagala si sunna ahlu sunna wal jamaa dañ la war a xam mm-hmm. ba suñ kilifa bi góor gi ne ah alaaji li mu la wax wax na dëgg dem rek ngeen seet waa xaaral bañ dem màkk <laughs> bañ toxoo dem màkk tamit topp ko si loolu ba aj di jeex benn bés laa jóg rek ma ne ko ah moom boo demoon man dinaa dem parce que góor gi nee na ma ñëw waaw arab bi nee na ma ñëw mu ne ma waaw comme que da nga kañ xaaral ma gungi la <laughs> maag moom ak ustaas buur ñu dem arab bi ma wax ko kon ma man mii man Alaaji Sarr maa ne ko kii ku ko dimbale dimbale nga ku jara dimbale waaw arab bi ne ma wax musoo maa wax fekk ma ne ko yow xam nga ne yow andiwuloo ma fii pour ma ñëw aji màkka mu ne ma waaw ma ko kii moo ma andi si xaalis waaw ñu toog sa restaurant arab bi dafa bëgg jooy mu ne ma xaalis bu takku boobu yëpp hada al fulus al kabir huwa alladi min maalihi moo ko jëndee si xaalis ma ne ko naam wa laysa lahu mumawwilun illa allah loolu laaw arab kon su xamee arab sax toog moom man maa tax loolu laa lay toll alhamdulilah <laughs> jazakallah xeer mën nañ ci xamee lu bëree bare bëri eh, sama mag dañu toog ci bunt bi muy nettali benn jigéen joo xamante ne day faral di def ay ndimbal par corps mm-hmm. nee na mi ngi dégg jigéen ji di ko wax naan beneen ki mu doon waxtaanal naan ko mo liñ koy jox ci naar yi lay jóge moomu ci dara daal di ne ko gis nga këram bi ñetti étage yëpp ceeb la ba mu fees dell dell dell loolu nag bi ma ko waxee damaa ree ma ne ko bu noonu moom daa wax nga dégg mais am na ci ñeneen ñoo xam ba tey sax loolu la ñu fas ci seen xol waaye man li ma gëm mooy Oustaz moom buy def yàlla rek moo tax muy def. te kër gi foofu ma leeral. Mm-hmm. mbiru arab boobu noonu. Mm-hmm. muwaffaq bi nekkoon mul xaqiya bi. Mm-hmm. cheikh muwaffaq kooku jox waa jooju mu ñëw suñ dëkk tabax. kon waa ku leer la. ku leer la alhamdulilah mooy imaamu masjid eh, bi mataari jidda. cheikh Mouhamad Abdallah al Maliki. mooy kooku. su fi ñëwee day dem seeti docteur waaw alhamdulilah bëgg docteur loo trop waajur na ko yàlla waaw bëgg borom xam-xam Sénégal trop mm. bëgg leen lool na ko yàlla dégg waaye ak loolu pour mu dem kooku recevoir ñu toog waxtaan sax da mm. jël na ma weer ma ko yàlla fay. lépp li mu def daal gannaaw yàlla. Mm-hmm. si liggéeyam la. kon lii nga nettali daanaka ci at bii la am te taxul nag mook naar bi ba tey ñu jëflante ci jokkalante alal ak yooyu alhamdulilah ala kulli haal Mouhamad ñu ñëw ci kër gi ba tey rek parce que dafa yor ay jirim mm-hmm. ñoo xamante ne ñu ngi bawoo fu ne di fi ñëw ci àll bi xonq beeg ñëpp ñu Dakar yëpp ñu ngi fiy ñëw mu di leen garde fii di leen dundalit ci euh, koom-koomam muy ci ñoq boppam ala kulli xaal mu jël ñoo xamante ni ñu ngi ñoo leen di jàngal ñoo leen di tarbiya ñu bari lool jëflanteem ak ñoom waaw oustaz Harouna Ahmed Sall euh, daara ji pour tënkal la képp ku fi nekk di fi liggéey oustaz moo lay fay ci ñàkku boppam boo calculé woon ndongo yi fi nekk bu fekkoon ne da ni juróom fukk la xamal ni ñeen fukk yi ak juróom ñeent fay ñu dara mm-hmm. kon kooku tatasaal min ayna lahu haada min ayna lahu haada bi maana juhdu bii muy def ak effort yi muy def nan la ko mën a defee mooy lan mooy xoolal ustaas du yend ak du fanaanal ñi dëkk moom xam nañ ni bu xasee ba xëy dem na liggéey ci liggéey boobu ci lay yore daara ji lépp képp ku fi nekk ci la lay fay rawatina doomu jàmbur yi mu yore di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan ay saaku ceeb par jour ndugg ñëwagul leneen ñëwagul ndekki ñëwagul loolu lépp ci ñàkk boppam ci liggéey bi muy def nga xam ni waajuram moo ko ko jàngal ci loolu la leen di fay parce que bu fekkoon ne nit moo koy jox loolu loolu bu fekkoon ne nit moo koy jox loolu loolu mënul nekk bis bu nekk nga yëg waykat bi dafa ni law sa'ala law sa'ala naasu turaaba la aw sa ko awsakoo an yamnaw nit ki boo doon xëy bis bu nekk ne ko may ma ci sa suuf soosu sa buntu kër mu coppati jox la nga ñëwaat suba ne ko may ma ci suufu bu yàggee boo ñëwee ñetti ñeenteel ba mu ne tibbal te yaa soof dégg nga kon laaj bu bari boobu noonu loolu bokkul sax ci jikko oustaz kon oustaz lii muy def effort bi muy def la ñaqam bi muy def di ci fay daara ji di ci dimbali jirim yi ba xataa am na franco bu mu def ci biir jël ay nit fay leen encore loolu lépp dara ump ma ci moo tax nit buy wax damay xam ni kii xamul nit buy wax ci moom naan alal bi fii la jógee faa la jógee dangay xam ni xamul yow boo ñëwee ci kër gi sax oustaz bu génnee dem na liggéey te xoolal heure bi muy wàcc kon kooku noonu nga xam ni liggéeyam moom moo mun a yenu lii nii mu yónni rawatina nag ñi nga xam ni. dañ fiy ñëw maanaam pour seeni soxla. ak a bëri. spécial pour loolu. ñëw bëgg a gis oustaz ah man kat kër ga dara tàff fa nangam. wala wallaahi oustaz da lay woo. Mm-hmm. bu ñëwee parce que du bëgg a waxam ni nit ñi di xam si sa kër. Mm-hmm. day ñëw beroog yow nga wax ko dégg ko li ñu koy dégg ñu yëkkati jox la kon kooku maanaam li muy def alhamdulilah ala kulli haal jazakallah ahsante ya cheikh kon foofu yaakaar naa mën nañ fa ubbi bunt rek euh, saar ak euh, Mouhamad li pour ñaanal mbokk yi nga xamante ne tey loolu mu doon taxawee ginnaaw bi ko tolof tolof bi dawee loolu taxawul ndax am na ay mbokk yu jàmbaare ci wàllu alquran yu jàmbaare ci daara ji yu jàmbaare ci jirim yi ba démb rek am na ci mbokk moo xamante ne macha allah andi na lu tap dugal ko ci daara ji ñu def occasion ñaanal leen yàlla incha allah yàlla wuutalal leen ngeen ñaanalal leen ñoom ñëpp macha allah ak taxawaay yi nga xamante ne mbokk yi ñu ngi koy def wax dëgg yàlla lépp nag ngir alquran lépp ngir sunna yàlla na yàlla fayal ñu leen ngeen ñaanal leen yàlla ala dachil qalb incha allah loolu dana tax ñaan gën a gaaw a nangu incha allah ñu def rek kon point bi nga xamante ne ci la ñuy taxaw euh, leeral ko ba beneen jotaay bi di ñëw incha allah su ko defee ñu daal di tëj yi nga xamante ne mbokk yi indi nañ ko ñu xaaraat yeneen mbokk incha allah ci kan mooy Oumar Ahmad Sall dañu gis ne day xaj day xaj mu mel ni ci waxu Mouhamad li dégg nañ ci waajuram bu góor la ko jëlee loolu moom ñun yàlla def na ñoo bokk loolu moom dafa nekkoon ci góor gi àla kulli donte man dama nekkoon tout tànk moom sax moom ma fekk ci kër gi may toji bopp mm-hmm. ma xeexal sànni la xeer bopp toj <laughs> mu jël ma yóbbu ma Kaolack mm-hmm. aha mu jël ma yóbbu ma kaw lax ñu dem kaw lax yàlla def di feebar xam nga rek ñu xiiwoon di mm-hmm. feebar a ko jóg góor gi yëg loolu ne ko fexe leen a indi mu indiwaat ñu moom mu nekk Jurbel bi mu ñëwaatee fekkaat ñu ci kër gi ci la ma jël jox ma Cheikh Cheikh Bakar Hamdi Diouf almarhum dal na ko yàlla dolli yërmande mu ma jàngal faj moom Oussa ci boppam naan ma yow mën nga faj mais doxalin bi moo nekkul ci yow maanaam te <laughs> moo nekkul ci yow laa ko daal mu di ma ci sànni xeer mais baax la ku baax la ku baax la léegi nag faj boobu dafa booleek di ko booleeg ay bënn ay teen di ko joxe mais bënn ay teen léeg-léeg du dellu tamit ci alalam yaakaar naa ay nit a ko koy jox parce que léeg-léeg mu soññu nit ba mu bënn teen ngir waajuram walla boppam ndax loolu am ngeen lu ngeen ci xam pour nit ñi tamit mën a xam parce que léeg-léeg ma dégg ay nit di ko woo naan dëkk sàngam di soxla nañ teen dëkk sàngam soxla nañ teen ba dëkk bi ñu mujjee jóge muy ci côté suuru après dem wuy di convocation bi dëkk boobu may na fa ñetti teen ndax loolu alal ci alalam la dellu wala boobu moom nit ñi ñoo koy def ma xam waaw ah, mm-hmm. la plupart si si alal alalam mm-hmm. am na ay taalibe yu baax yoo xam ne tamit si daawam lañ gisee sunna mhm. si daawam lañ gisee infaaq mhm. ñu xam ne buñ tegee seen xaalis bi si mhm. loxoom teg nañ su ko si yaddin aminatin moo tax ñooñu di ko sas di ko wax ne te moom moo leen di wax ne génnee leen sarax te li gën si sarax mooy ndox gars yi di ko jox mu leen di gasal waaw mbir mi nii lay leer na mu wàccee boppam trop si loolu wàccee boppam trop si loolu mhm. moom si boppam mooy dem mhm. oustaz xam nga buy ndugg sax jabaram du ndugg ñun mhm. ñëpp xam nañ ko buy dem jënd parfois damay ànd ak moom yaraax mu mu nekk <laughs> si ay nekkin yoo xam ne sax neexuma man li ma li ma gënaloon mooy am na fi ay jarbaat am na fi ay rakk mu toog ñoo ñu def <laughs> waaye oustaz tawaadu am mayu ko pour mu sant kenn dara waaye nag ndeysaan loolu dafa may fàttali benn woy arab mal ar ruusi mhm. tanhani bi tawaaduin wal faarigaatu ruusuhunna shawaariqu ndax nit ki moom bu amul dara boppam sa kaw nga koy gis mhm. waaye koo xam ne dafa dal bëgg yàlla bëgg yenent bi mhm. te am ay ahdaaf madal qariba ak ahdaaf madal baida kooku foo ko gis rek soo ko joxee sa xaalis dina ko teg fi mu ko war a teg. jazakallah xeer mooy bu fees du yëngu. moom la wolof yi di laajte. waaw mooy bërigo bu fees. Mm-hmm. du yëngu kul xaal nga def ci loolu taaliq bu ñu paree ñu def euh, kalimatul xeer parce que nag. Mm-hmm. bëgg nañ ko yokk waaye nag ko <laughs> li duuf ci nag yi xajul ci cin li. ñu dagg te ba. Euh, li suñu waajur wax lu ñuy firndeel la parce que man mi bokk naa ci ñi ñuy woo di ma laaj teen oustaz Omar Sall dimbali ñu ngir yàlla pour mu defal ñu teen parce que ñoom xam nañ ni. senegal bari na ñoo xam ni alalu jàmbur maanduwuñ ci hmm. tey dangay jox nit sa alal boolu ko hmm. mu war la ci hmm. te li ci gën a garaaw ma wax la oustaz tey boo ko woowoon laaj ko facture teen ki koy gasal teen kooku moo naan ko temps temps temps mu woo la ne la temps temps temps te xoolal moom coono boobu dem ak dikk bi ak surveiller bi coono boobu noonu ndax mun nga kaa fay mënoo ko koo fay te du la ko laaj da koy def fi sabilillah yàlla rek moo tax kon kooku himma boobu muy def ak juhdu boobu muy def kon xam nañ ni yàlla rek moo moo tax mu di ko def ndax liggéeyam bii mu bàyyi la ko bis ñaari bis dem ngir ci sa loolu day wone tawaabaam ba ca topp mooy moom ci jëmmi boppam yàlla moom moo ko bindee noonu mooy li ma la waxoon rek maanaam aajo nit man kaana fi xaajati axiihi kaana allahu fi xaajatihi soo ñëwee ba am soxla ci moom wax ko amatul jàmm feek sa aajo boobu sa soxla boobu fajalu la ko rek moom du si am jàmm ay misaal yi ay misaal waaye euh, temps bi <laughs> moo fariwul waaye ay misaali misaal lañ ci am loolu moom oustaz ku dund moom xam nga ni fa tabaarakallaahu jikkoom ak jëfam ak jëfandikoom lépp ci yenente bi alayhi salaatu wasalaam la ko jazakallah xayr kon ñu bàyyi xel ne rek kàddu yi ñu fi wax yàlla rek moo tax ñu di ko wax te am na yaakaar ne it ñu koy wax ñu xam Umar Ahmad Sall ndax bul sede lu muy la nga xam ala xaal te ñii di seede kii mooy imaam Alxaaji Sarr imaam Muhammad li kii jarbaat la kii xarit la doomu ndey la wëllëre la ala xaal di ànd ak oustaz fu ne ñu bàyyi ko rek mu def euh, kàddoom gu mujj muy ay ndénkaane nag jëm ci suñu réew ci mbooleem jullit ñi bu paree oustaz def ñu xaaraat beneen jotaay incha allah rabbi waaw euh, imam Harouna ñu sant la yow it gërëm la si sa euh, invité bu invité si programme bi ni ñu leeralal nit ñi suñ sëriñ mm-hmm. man daal damaa bëgg mm-hmm. Sénégal yëpp xam ne mm-hmm. oustaz li li koy dundal mm. mooy senegaal nekk si jàmm mm. dalee ko si nguur gi bi mm. ku koo xam ne tey la ñëw si àdduna loolu mooy yitteem waaw oustaz loolu mooy yitteem mm-hmm. oustaz li nekk si moom dafa bëri oustaz damay ànd ak moom muy faj nit ñëw foofu da nga da ngay foog ne sax kooku dafa dafa ñëw pour faj koo xam ne jëkkëram gaañu na mm-hmm. ñëw ba si man ne ma damaa ñëw faju hmm. ñu dem ba si oustaz mu ne ma déedéet ñëwuma faju de hmm. man damaa bëgg oustaz jëlal ma samay njaboot hmm. mu ne ma alaaji foog nga ne kii ñaataa koy doy ma ma wax kooku noonu te si soose sax laa koy wax yow ñaataa lay doy mu ne ma tel oustaz jox ko triple am ne ma jox ko ko mu dem kooku mooy oustaz Oumar Ahmad Sall jazakallah xayr um, oustaz Oumar dafa am benn xadis boo xam ne saa su nekk maak moom suñuy waxtaan daf ma koy wax. Mhm. may wax ne xanaa xamuloo ne li may def nii si yeneen yàlla bi laa ko jëlee. Mhm. li an taqifa maa axiika mhm. fi xaajatin lahu xataa yuqda xayrun laka min al itikaafi fi masjidi shahra mu ma alaaji xam nga yool boobu lii la may wax nga taxaw ak nit si aajom ba mu moo la gën a nga dem masjid madina bi nga xam ne boo fa jullee benn julli mm-hmm. <laughs> lim yow xam na ñaata waaw ah nga ne junni junni yoon nga def loolu juróomi julli si weer taxaw bi nga taxawlu nit ki bi aajoom faju moo gën loolu mm-hmm. saa su nekk lii mooy jazakallah xayr jazakallah Cheikh Sarr Mouhamad kàddu ndénkaane yi nga xamante ne moo mujj ñu yëkkati jotaay bi incha allah waaw oustaz ci ñambaas rek dolli tuuti nekkul kese kii ñëw di faju ci si oustaz kooku kese la oustaz di dimbali waaye am na koo xam ni day yore feebar boo xam ni dem na hôpital ñu wax ko loo xam ni mënu ko mu woote ci numéro oustaz Oumar wax dëgg nag ak ki caaxaan laa lay booleel am na koo xam ne wax na dëgg ci loolu oustaz taal na otoom ñëw yóbbu ko faj ko fayal ko bu dee dañ koy opéré ba mu wér te di ko nemmeeku kooku ko ku wax dëgg la mais am na ci koo xam ne dafa toog rek nax ko gis nga bii ba ca topp ba ca mm-hmm. xutba na ci lu mel noonu mm-hmm. bi mu wàccee ci minbar bi am na lu ma dee mm-hmm. mu ne som bi mënuma koo wax ci minbar mais dinaa la ko dee waaye mu nekk som bu bëree bari waa ji noonu ko naxee jël xaalisam te daf ko woo pour mu dimbali pour mu dimbali ko rek pour mu faju moo tax ma la la oustaz maanaam ñeewante bi mu am ak yërmande bi moom moo ko yóbbee ci lu ne waaye nag yàlla ak yeneen bi luñ la ci naxee jar na ko doo ko perte damay dëgëral sama foofu moom loolu bés bu bés bu ko loolu dalee woo <laughs> na ko ma man man man xadaa aka finnaam xadaa naa la mu ne ma kon loolu laa gëm wàccee boppam loolu jazallahu cheikh xayral jazaa dénkaane bi li ñuy dénk Sénégal yépp jullit ñëpp yëg seen xol yëngu ndax waykat bi waxoon na in yaxmi an ayniyal bukaa tajalludi fal qalbu mawqufun ala subulil bukaa am na ci koo xam ne bi mu yëgee lii ay rango ñoom mu ngi tuuru mënatu kaa tee waaye muñ rek tajalludi muñ rek dëgër xam ne lii day weesu natt la ñu ngi leen di massawu nañu muñ te xam ne lii destin la lii yàlla da koo bindoon ci moom il faut mu jaar fa wante nag ay maqaama rek nag lay doon. te ñu ko koy ñaanal yàlla incha allah loolu la ñuy dénk. yàlla ko def jazakumullahu xayran mbokk yi kon nag eh, ñoo ko bokk déggandoo loolu mooy ay jikko yi nga xamante ne eh, ràññee nañ ko ci Umar Ahmad Sall yàlla na ko yàlla saxal ci moom. amiin mbokk mi bi mu ñëwee ci tudd bi <laughs> ñuy tudd ku yëkkati kàddu rek tagg kiy tudd ne dafa baax dafa baax ne góor gu màggat mu ne. ah li ñëpp wax de mbaax la bu nekkee ci yow yàlla na ko ci yàlla saxal bu nekkul ci yow yàlla na ko fi yàlla de waaye lii ñuy wax ci Umar Ahmad Sall yàlla na ko yàlla saxal ci Umar Ahmad Sall ala kulli eh, kàddu yi ñuy yëkkatee jotaay bi rek mooy di masawwaat ba tey mbokk yëpp incha allah di leen ñaanal ñoom ñëpp tawfiq waaye di masawu it ñi nga xamante ne yëkkati nañ kàddu ci Umar Ahmad Sall ak bëgg ak yéwénoo ay kàddu yu naqari di leen ca fekk mu bokk ci cheikhana cheikhul jalil Mouhamad Ahmad loo ci loo nga xamante ne mi ngi ko doon wax ala kulli xaal yal na yàlla sàmm ko di bokk ak moom rek ala kulli xaal mbir yi moom nii la ñoom ñoo ñu jàngal ñoom ñoo ñu jàngal kon lii mooy yoon wi ala kulli xaal ñu ngi muñ di muñ loo yàlla di leen ñaanal ñoom ñëpp daal ala kulli xaal yal na yàlla sàmm ànd gi mbooloo mi yal yàlla yokk ko def ko muy mbooloom sunna suñu daje ëllëg yàlla na nekk aljana yi gën a kawe yàlla mën na ko yàlla na ko def yàlla bu fa kenn manqué wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu